jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su yéen a ko doon laaj mu ngi nii aatu mi réeroon feeñ na démb arène nationale ndeke aatu mooy Pape Sarr mii kon bu kenn woyati ci woykat yi naan atu réer na feeñ na mu ngi nii toog Pape maa ngi lay féliciter ci ndam lu rëy li nga am démb ma lay nuyu baat baax di la siyaar waaw Ba Djili fay naa la maa ngi lay nuyu di nuyu suma rakk ji suma caméraman bi. Hmm. moom mooy métti caméraman yi. ndeysaan Adama waaw maa ngi lay nuyu. di hmm. nuyu équipe bu wasaare yëpp. Hmm. xam nga di leen ñaanal tamit gis nañu seen liggéey tamit. wax dëgg yàlla di leen ñaanal mu nekk télé bu mag a mag a mag. xam nga di nuyu tey suma frère daf ma seet si. kii mooy Siga Riga bu Pape Diouf. Siga Riga Riga tey daf ma seet si kii. original di nuyu nag sama rakk yi. Hmm. nekk fii di nuyu waa Pikine. micro hmm. di nuyu waa Pikine yëpp. Hmm. kii daa sonn ci Pikine. géejawaay la dëkk amoo. la dëkk mais vrai doomu Pikine la. xam nga. maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax. di gërëm nag sama famille yëpp. gis naa taxawaay bi. nda wax sama yaay ñaan yi egsi na. sama yaay lekkul naanul. xool yërëmul ama seen de mais man mii la yërëm. billaay wallaay tallaay di gërëm nag Ibou. bu Belgique. Hmm. doom waagu ñaay la. mais fu mu teg Eumeu Sène démb lépp lu ma def ci Eumeu Sène démb. Hmm. ñàkkam la. kooku su may wax si moom damay jooy quoi. Hmm. maa ngi koy gërëm bu baax. billaahi. di nuyu nag. ñëpp jooy Pape Sarr. bul jooy parce que noo am ndam lu rëy demb non tey ci nga jëm sama xol. ku seddal sa xol laay wallaay talaay maa ngi gërëm Cheikhouna si bu baax moom mu ngi ba pari ñoom Toumani ñoom Alain Jimbo ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm taxawu nañ ma jàppale nañ ma Mouhamed Ali Ndiaye coach mm, mm. gis naa sa sortie bi rafetlu naa ko Mouhamed Ali Ndiaye bokkuñu fi ñu far de si mm. Balla Gaye la ak la de guerre man ma for Pikine mais man damaa soxla ay conseil Mm-hmm. parce que nit ku baax la xam na ni sport la. yaa ngi may de gis que. Mm-hmm. damay gis si muy wax yu bëri dam koy for di si bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla na jàmm sax si moom. di gërëm tamit waa diaspora bi tamit bu baax a baax a baax. képp ku nekk ci live pour Lutte TV nga jégal ma ci sit bi. amul solo ñun ñëpp ñoo far wallaay ñoo bokk xam nga maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax. ñoom tumaani xam nga ñoom ñëpp. maa ngi leen di gërëm. bu baax a baax parce que yenn saa dañ ciy wax loo xamante ne nit du ko tindi yaa ngi may dégg est-ce que hmm. man mun naa leen njëkk ci làmb fuuf hmm. mais yenn saa dañuy wax loo xamante ne lii lu tegu la hmm. xam ak ñii di dugg si di wax ci live beeg ñoom ñëpp ak rakku bombardier bi tamit keroog bokk nañu live xam nga maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko masaw di ko wan ne lii làmb rek la man sama frère nga bu combat bi taxawee ba tey ñaawul xam nga moo tax ñaawul Eumeu Sène ak Bombardier. Hmm. signé nañu kontra te amul kenn ku ci dépassé sa morom. déedéet. si loolu laa jàngee nag. Hmm. ba nga xamante ne loolu laa indi ci stade bi. Hmm. gisoo ma këf gàllaaju Bombardier. déedéet gisoo ma tuur ko saw. déedéet gisoo ma saaga ko. déedéet gisoo ma wax ko ñaaw. parce que loolu doonu ñoom ñoo ko wone. ñi doon bëreeg Eumeu Sène ay kàddu yu ñaaw lañ doon te ci deru Eumeu Sène moo tax ma ñëw jaay sama bakkan. mais Eumeu Sène boo signé ak moom contrat. Hmm. nga xam ne lii contrat la lamb moo leen boole day jeex. Hmm. man dam koy yemale ci affaire combat. balaa may wax ci combat bi wala may wax ci leneen. Hmm. si sama frère laay njëkk wax muy Lac de Guiers 2. waaw. wax ci moom. duma ko wax lu ñaaw. ma wan ko tey sortie boobu mu defoon. Eumeu Sène sa rakk yi la bëgg. waaye bëggoo sa rakk yi. moo ñu jural problème yi. yan problème yi am. gis nga li xew ci open press bi. Mhm. gis nga waa Pikine nuñ ko def. Mhm. lépp waxu la de bi la. open press bi lan moo ca xew. li ca xew mooy seize écuries yi ñoo fi nekk Pikine. Mhm. benn mbër ñëw ci. benn mbër a ñëw. benn mbër moo si ñëw muy Boy Niang. yeneen ñi si des sook moo fi am contrat. ak Ama Balde kombaam dafa averti. du dëgg. Ama xamuñu fu mu nekk tamit ñun dañ koy comprendre. Sokh daa dem Maroc. mais dama ne la waxuma Ama Baldé waxuma booy Niang waxuma Sokh mais dama ne la si seize écuries yi. Hmm. ku ci nekk bu nekkee juróomi mbër ci biir écurie Pape Sarr jàppale na la. kon yow li nit ñi ñëpp constaté mooy Eumeu Sène dafa wéet démb ci làmb. bu baax wéetul ci làmb ji parce que waa ginnaaw raay génn ñu waa mbaaw génn nañu cent pour cent yi génn nañu feesal stade bi. non ñooñu ñëw stade ba est ay amateur la. déedéet yu bëgg a am ndaanaan la ci la. bis dafa am suñu benn waay. Hmm. ku ñuy wax bu Jimbo. Hmm. di Bawol di di Kajoor production. Hmm. xaalis bu mu joxe ay biis lañ ko jëlee ñu yab ay biis ba mu fees yab ay Ndiaga Ndiaye ñu feesal stade bi ñu teg ci mukaay ko cat ba cat dama koo feesal ñooñu ñooy cent pour cent yi. yaa ngi may dégg est voilà hmm. ñooñu ñooy cent pour cent yi laay wax de. Hmm. ñooñu laay wax. Hmm. ay Ibou Samb capitaine Gelawaar. dégg nga ay Codé Kër Massar as fan ci club la fa indi. biisu Gambie rek waa Gambie yi rek benn xaaj bi ñoo fa feesal. kon am na seen démb wéetul ci stade bi. ñaata mbëri ñoo fa ñëw. mais bu njëkk am seen bu daan bëree. dégg ñaata dama la la ñaata bari na waaw. waaw Eumeu Sène bu Moussa la bëre. Mhm. mais yow écurie Gana Seras mu ngi nii. gis nga tête de bi. Pikine mbooloo mu ngi fi gis nga tête de file bi. ah dégg nga écurie Ramdan mu ngi fii. Mhm. écurie baa mu ngi fi mhm. écurie Tefes gi mu ngi fi dégg nga Fodé du subaa écurie yëpp a ngi fi même bu nekkul tête de file bi na si ñaari mbër yu ndaw ñëw soutenir seen mag. loolu moo ma metti est-ce du dañoo mere Eumeu Sène. loolu la ñu mere Eumeu Sène est-ce que du duñ ko gis xam naa du leen du leen woo duñ ko mën a jot téléphone wala lan moo tax lan mooy problème bi. seen biir yéen waa Eumeu Sène yàggul dara. Hmm. benn mbër bokk suñu journée bi. Hmm. ma yóbbu ko mu may ko ñaar fukki junni. Hmm. waaw muy Pokola Balde. ne ma Pape Sarr damaa bëgg nga jox ma numéro téléphone Eumeu Sène ma jox ko numéro téléphone Eumeu Sène mu woo Eumeu a ma Sène ne ko foo nekk fekk ma sama kër mu koddal ko cent mille cent dix mille sax la ko jox. Hmm. ne ko am si koo xam ne sa combat ñetti fan moo ci des si saa si la ko Eumeu Sène woo. Hmm. yaa ngi may dégg est-ce que. Hmm. billaahi wal kitaabi. dëgg la xam nga ma koy gërëm booy boobu tamit bu baax a baax a baax a baax di gërëm yaayam. Kumba Balde. Oh. Hmm. maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax démb Eumeu Sène ko ñu Fallaye la taxaw di yuuxu Ama yee kon lan moo fi nekk lu dul ay nit yu ñu si fii di jaxase. kan moo jaxase. waaw yow Ampa parce que da ne Lac de Guiers 2 waxam bi mu moo indi tey jafe-jafe yi ngeen am Pikine mais Lac de Guiers 2 dëkkul bu fekkee wax jooju. war na yow wax joo wax jooju ñaaw la wax jooju rafetlu wuñ ko Eumeu Sène yàgg na signé nit contrat te lii la de guerre wax amul soo amoon booy ñaar du ñëw ci open press bi du ñëw ci combat bi dégg nga la sama frère la ay booyam yëpp samay booy lañu ñaa bu daw ñëpp xam nañ ni man sama xarit la Alioune Seye 2 ñoom ñëpp mais dama koy ñaan xas xasuma ko de. Hmm. du ma ko wax lu ñaaw mais dama koy ñaan bu ko yàlla mayaatee combat. Hmm. muy def ci muy defaat face à face. Hmm. na bàyyi di dugg ci vie privée jaamur loolu daanul mbër. billaahi wallaahi tallaahi bis bu toogee ci kaw Eumeu man mun naa rendi sama bopp billaahi munul daan Eumeu Sène xanaa ma dee. dégg mais démb Eumeu Sène fan la nekkoon ba Pape Sarr ba dix-huit nga téye ko ci àll bi muy mu nekk ci àll bi mu nekk ci àll bi nekk ci àll bi ba Pape Sarr ngeen ñëw foqati ndam li yóbbu ko fan. damaa billaay wallaay dallaay bi gars yi di gëm ay newetaal man ci làmb laa nekk ñi ma fekk si ñëpp ci ay ASC lañ newoon hmm. man bi gars yi di gëm newetaan hmm. man maa ngi ci làmb ji di sonn ci mbër yi hmm. barki yàlla demul yàlla ñun la àndal fan ngeen nekkoon si yoon bi dama jow jaar nii départ bi départ bi fii laa jaar mos na fi jaar démb fii la jaar bi muy dem maa ne ko jaaral nii mu jaar nii ñu dem bëri diis ñu jaar nii dem ba ci alméeri yàlla def ñu fay denc benn néew. benn mm. ku nelaw ku fa nekk. Mm. ma ne leen nañu xaar ba ba mu jàll. jël nañ fa tey monsieur nañu ci oto bi. mu ngi si biir oto bi. mu taxaw ma ne nañu bàyyi ba mu jàll ba mu jàll ba ñooñu dugg si biir alméeri ba mu am 15 minutes ma ne nañu doxal ñu jaar noonu. Mm, ñu rey temps bi. ba mu nekk 18 heures pile ma dugg si stade bi. ma ne ko bul jaar porte centrale bul jaar porte Arbitre jaaral loos. Hmm. parce que man stade laa fanaan. yow sama rek waaw waaw biir stade laa fanaan. falaa fanaan ba bët set. falaa fanaan ba bët parce que damaa xam tey bu ñu déggoo ba la billaay wallaay bu daanu woon dem. Hmm. laa lu tax garabu yow moo may ëpp valeur piqué garabu yow fukki dërëm moo may ëpp valeur. kon looloo tax bi Eumeu seen di génn pression boobu nga àndal. ba jooy waaw lan moo nga jooy. doguma la sax mais xaaral ñu ngi ñëw ci yow xaaral uh-huh. xaaral. quatre heures léegi quatre heures du matin kii moo ma woo. quatre heures du ngi ci biir stade bi ci biir stade bi. billaahi ama seen bu daanu woon dem. garabu yow fukki dërëm moo may ëpp valeur Pikine. dëmm la rek laa dul dégg. lan moo waral loolu ci biir Pikine bi nga dëk dama koo xam parce que dam see jàppante ba tooy. parce damay toog am na jotaay yoo ne su ma ci tooge nga bëgg wax a ama ah mm. billaahi wallaahi watallaahi di nga dégg musiba dam ko dul nangu duma nangu ngay xas sa Ama Baldé sama kanam mm. duma nangu ngay xas booy Niang sama kanam mm. muy Sokk ak yeneen mbër ñun nag suñu biggin bi loolu moo fi am léegi da ngay gis kenn topp Eumeu Sène wala topp Ama Baldé di xas billaay wallaay tallaay tiset bu deux mille la ñu mun ci mbër bi ak billet deux mille dégg nga mm-hmm. dégg nga mm-hmm. bu ñu ñëwee bu mbër bi daanoo ñu yàq ko musiba Hmm. parce que yonent bi. Hmm. te man du ma doxee noonu. man topp naa mbër bu tegle six défaites six te du ëmb seen. Hmm. six défaites la tegle ma topp ko bañ a bàyyi. waaw. billaay wallaay talaay. kookal la. du ma tudd turam du ma tudd turam topp naa ko six défaites la tegle ma topp ko saa yu am combat rek ma dem ci autorité ñu defal ko ti set mais actuellement autorité yi la doon jàppale. ci làmb ak mbëru pikin yi nga xamante ne ñoom nga daan àndal ci làmb danga defoon benn sortie ne combat bi mooy sa teg jeexal mais maanaam boo àndee ak Eumeu mu am ndam dootoo teg mbër loolu da koy confirmer wala dang ko waxoon. waaw confirmer naa ko tey ci suba. Birane Ndour laa woo. Kéba Kanté ah sama transitaire. ni may jàppale ci làmb ne leen sama doom uutal naa ko téléphone bu baax am na Wave am na Orange Money li ngeen doon dimbalee mbër bi hmm. envoyé leen ko sama doom moo ëpp soxla mbër yi sama doom Cheikh Fall benn laa am kuntum sama doom quinze ans la am euh, Cheikh Fall xale du xale de parce que du xale de euh. Birane da koo de sama hmm. doom jooju billaahi wal kitaabi Birane ak turandoom Birane Ndour fi mu teg sama doom man ak yàlla billaahi wallaahi tallaahi lépp lu nit di nit moom taxawoo na ma ko ndeysaan maa ngi koy gërëm bu baax hmm. moom maxu suba teel ak Pape Diouf billaahi wallaahi tallaahi. Hmm. maxu suba teel saa sama bët xonkee moo ma koy fompal. ndeysaan. dégg nga yàlla daf maa dimbale ay linki yoo xamante ne ku yaboo moytu de boo jaarul fii doo am lu baax de yàlla daf maa dimbali ci loolu. Hmm. man sama teraanga yëpp ci làmb ji la dem fii nga may interroger. Hmm. fii sama dibiteri la woon. mu ngi nii garage Mauritanie bi bii. sama nijaay moo fi ubbi woon bi fet. dibiteri bii laa tuddee woon suñu papa Ndiaga Mbaye. dibiteri Fallaye moo mujjee làmb ko yàq. làmb moo tax ma perte tax nga nga perte ko. baabooy la Gris Bordeaux. Mhm, micro bi fii lu waree jardin bi fii ba fii yëpp. waaw ah. ba marché ba ba pële. fii hangar nekk ay ñaga njaay laa ko gaare. Mhm. yaa ngi may dégg gis que. Mhm. tey su ma gisee day mel ni boutique mi la gis. te jiwuma ko loolu. papam ak sama pap. ñoo bokkoon benn service sawaadib ñu koy wax siyaas. dégg muy sama xaritu papam papam. micro bi Mm. te musuñu may def interview ma xas papam mm. wala ma wax yaayam. Mm. moom rek laay wax. parce que si Cissé sama nawle la suma xarit la bëgg laa. te lu rafet rek lay wax si Eumeu Sène. yàggul dara ñu jubóole ko Eumeu Sène semaine bii lañ ko jox micro. dégg nga. nekk Gaston production moo ko dëkk micro. ne ko loo xam ci combat Eumeu Sène Bombardier mu sama yoon nekku si. mais ay nit lañu. te jubóole nañ leen ñoom. bu yàgg. diggante Baboy ak Eumeu Sène ak Eumeu Sène Eumeu Sène moo ma woo na ma léegi sama diggante ak Baboy jàmm am na si ngir yàlla bu ko defaral benn sorti nga bàyyi ko. Hmm. kon coow war na jeex. waay mais ñii barke Seydina Mohamed noo xóore leen raw noo xóor. <laughs> barke Seydina Mohamed. man su ma gisee noo xóor laa leen di xoolee. parce que jikko noo xóor la ñuy def. yaa ngi may dégg est que. Hmm. billaahi wallaahi tallaahi bu ñu seetaanee Eumeu fii ku fiy takk ngemb moo la dàq bëre xam nga xam nga kii na ko wax boo mbëru caaroy bi mbëru yaraax bi hmm. kii mbëru Moussa Ndoye hmm. nee na Eumeu Sène a dàq bëre ci làmb ji ñu weddi ko hmm. wane na ko ñoom ñëpp ki leen daan dam ko daan ñaar yoon bi Bombardier bi Eumeu Sène daanee Bombardier automatiquement Pape Sarr fan la ne damaa damaa daw ci drapeau bi ci drapeau ba ci drapeau yi parce que maa ngi xam ne maa ngi daw sama alal dégg ba pare ma ma génne ci ay sëriñ yoo xamante ne. Mm-hmm. billaahi wallaahi tallaahi du ñu sax ñaan ci làmb. ay kilifa yoo xam ne ay million moo leen di génne déplacé loolu ay million boo yorul million du ñu génn seen buntu kër. Mm-hmm. xam nga lan lan la ñu génnee lan moo tax ñu ñëw ci man. Mm-hmm. pour jàppale Eumeu Sène. billaahi wallaahi tallaahi sama coono mi may sonn fayuma leen ñaar fukk. billaahi yónnee ma paas la ma wax ma yónnee ko paas quarante mille francs mu ñëw jël oto. fi mu juge tu ma ko wax nag. Mm-hmm. mais dëkk bu sore la jóge ñëw. billahi wal kitaabi laa wax du ñaanal kenn ku dul ay ministre ak ay président maa ko déplacé démb indi ko ci stade bi. ndax coona bi may sonn. bugguma tudd turam nag. Mm-hmm. bugguma tudd turam. la maa ngi koy gërëm moom xam na mm-hmm. man xam naa. billahi sama jëmm ji moo tax mu ñëw jàppale si Eumeu Sène. gis kooku doonu gis nga suñu combat yi ñuy bëre ñuy ñàkk ni ñuy ñàkk ni Eumeu Sène mun na leen soccoo ñoom ñëpp. billaahi wal kitaabi. léegi ngeen dem ci tribune bi ñu yëkkati drapeau bi di ko jébbal Eumeu Sène. di ko Eumeu Sène ne Matar Ba bu ma jox drapeau bi lii Pape Sarr ko moom. billaahi ministre bi bu drapeau bi du tegu sama loxo teg ko ci loxo Pape Sarr parce que alalam la. noonu la ko defee ci roi des bi noonu la ko defee ci combat bi. léegi drapeau bi foo jëm moom. si Birane Ndour Kéba Kanté Maxu Suba Teel. Papa Diouf dégg nga. te drapeau bi bébé Bass ba Waly Seck. waaw Waly Seck waaye ma kenn ba Waly Seck. Ah? Mm-hmm. ko port sama transitaire yi. Mm-hmm. yaa ngi may dégg sax mm-hmm. mais nag xoolal yóbbu ko pour kaaje na na compte orange moo ne seex fees rek. sama <laughs> doom seex kees maa lay jaajëfal bu baax <laughs> kontaan la vraiment wax nga wax boo xamante ne wax responsable la. wax nga wax nga ni que ni képp ku dégg Pape génn rek laal nañ mbëru pikin kese laal nañ doomu Pikine. Uh-huh. ñu lay jaajëfal bu baax. di la féliciter ñaanal. yow it maa lay nuyu bu baax a baax a baax di gërëm bu baax teewaayu Siiga Riga. Mm-hmm. ndeysaan kii suma nit la suma lépp la. Mm-hmm. képp ku jàppoon ci combat Eumeu Sène bi. Mm-hmm. maa lay ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm. suñu rakk yi nag man Pape Sarr man du ma seen noonu. Mm-hmm. man samay samay rakk ngeen. Mm-hmm. ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. Mm-hmm. loolu la. buñ ma tegee fi ñu ma war a teg. ma jàppale leen. mais dañ maa tegul fi ñu ma war a teg. loolu la. man seen mag laa. nu ñuy respecté seen mag yi nañ ma ko war a respecté jox ma sama cër xam ne li may def fii gisuma gisoo déggoo ma ne la bu ma demee laa la Pikine vingt ans li ma def duñ ko fi def kenn du ko def parce que ay dóorkat ñoo fi bari man ngor bi ma am nga jox ma cinq cent mille ma jébbal ko mbër bi mm-hmm. barki Seydina Muhammad boo leen ko joxee ay tee ak si la jën jënd billaahi da ngay gis làmb événement bu mag am Pikine ñii si defar si seen néeg ñii di dawal ay sport city waaw dégg nga mm-hmm. ñii di si doxaan man ma si ñooñu de man chaque jour ndam laa soxla billaahi wal kitaabi soo ma joxe xaalis pour mbër bi su ma mbër bi ne la am ay ndox laa koy jënd di ko saraxe mm-hmm. wala ma dem yóbbu dem ci sëriñ billaahi parce que bugg naa chaque jour rek bu ma autorité joxee xaalis wala nit ku nekk si diaspora bi ma jébbal ko mbër bi ba nga xamante ne suba bu làmb jeexee mun naa romb sa buntu kër du ma sëgg loolu moo ma jàpp mais nag maa ngi ñaanal ñëpp jàmm mhm. di wax suñu rak Ama Balde mhm. moo des mook Sokh dañoo am combat mhm. na Pikine yëpp génn jàppale ko ah, bay sama rak kii nag mooy saraxu Ama Balde kii bu soobee yàlla moom lañ ne bu bu hmm. buñ ko rendee rek ama mun na am ndam moom moom moom la ñuy sànni eh, waaw yow la koy sànni xeer waaw yow la yow yaay sarax bi billaay buñ lay rendi ama de am ndam <laughs> maa lay jaajëfal bu baax bu lay jaajëfal ki nga xamante ni mooy Pape Sarr di ko félicité waat ci ndam li nga xamante ni am na ko démb mbokk yi di leen jox dig daje ba la allah xam na man ak yow. waaw ñu ngi waajal yeneen. non ñu ngi waajal dañuy ànd ñu dem jóbbu drapeau ah. bu soobee yàlla boo demagul sax man mun naa woo bu nekkee xatu ji mu ñu dem fa. ànd incha allah waaw parce que bugg naa man balaa kenn di jël drapeau bi maxu subateel ak Kéba Kanté. Mm. ak Daouda da Daouda Mbow ak Papa Diouf. ndeysaan Daouda Mbow international. Mm-hmm. billaay wallaay maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax. jaajëf maa ngi koy gërëm bu baax. vraiment ñoom it ñu sonn ci Pape Sarr lañu nañ may jàppale. Hmm. mu ngi nii chaque jour mayom laay sol. mu ngi nii gis nga. ay chaque jour moom laay sol. ndeysaan international. maa ngi koy nuyu bu baax ak famille Mbaw yëpp. ñi fa nekk ñëpp Almadi maa ngi leen bu baax a baax a baax a baax. Hmm. di nuyu Ahmed Lam Tooro. di nuyu Seydou Gaye hmm. di nuyu waa Gambie. képp ku ma limul rek damaa fàtte. maa ngi nuyu ñëpp ñu jàppoon ci combat bi. Hmm. waa Pikine waa Ndayane. mystique bi kañ lay tekkee ko nag. lii du dañ <laughs> lii il faut dimanche ma tekki ko jour combat bi su ñëwaatee laa koy doog a tekki. te <laughs> saa day nekk sa loxo ba dimanche. kay du dañ. <laughs> lii ba Gambie la jógee. waaw jaajëf Pape Sarr maa ngi koy jaajëf. Fall waaw li Pape Sarr wax léegi nan nga ko gisee. waaw Pape ah. Sarr moom euh, dafa doon nit koo xam ne ndeysaan ci ngor laa ànd ak moom moo ma yar. Mm. ñun ay doomu Pikine nañ mm. mm. mais nag yàlla dafa def maa ngi dëkk amu siis ndax dëggante ak Géejawaay foofu la yàlla def maanaam nekk sans base mais tey dafa doon loo xam ne maanaam Pape Sarr xolam la ko yàlla di fay maanaam dafa jël temps sonn ko ci Pikine mm-hmm. dafa jël temps def ko ci mbëru Pikine mm-hmm. est-ce que yaa ngi dégg mm-hmm. Pape Sarr tey ni mu mel nii tey waroon na ko dépassé mais lépp rek lamb moo ko teg ak bëgg Pikine waaw mais nag dañuy sant yàlla bu baax sant yàlla gërëm Eumeu Sène hmm. kooku waxu fi lu ñaaw defu fi lu ñaaw yàlla xolam la koy fay hmm. ndax tey moom moo doon mago mbër yëpp ci Pikine muy Boy Niang muy Ama Baldé muy Sokk muy mbër buy takk ngemb ci Pikine rek Eumeu Sène mooy sa mag hmm. waaw mais benn côté nag démb keroog open press bi waa Pikine dañ ko seetaan ndax tey li may wax nag bon waxee moo waxu boo xam ne maanaam damay jaxase mais Eumeu Sène tey taxawaay bi ñu waroon taxawee ci combat bi gisuma ko dem ba ma ñëwee ci stade bi gisuma ko. Mhm. waaw ndax Eumeu seen tey su génnee Pikine ñëpp ay génn. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg. Mhm. tey Eumeu Sène ni mu mel yàlla moo koy def. ndax tey nit a ngi nee di dem yàlla moo koy def ci jàmm. mais Pikine nañ bokk ndey bokk bàyyi. njaxasekat yi wala toppaatekat yi yi nga xam ne tey dañuy topp mbër ndax lan benn quinze mille wala benn vingt mille pour wutal la ay noon nan bàyyi loolu. Pikine benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. waaw hmm. mais daal li may am li am solo doy mooy Eumeu Sène na ko ndam li jig Bombardier tamit mbër mu baax la. Hmm. ndax tey bëri na combat bi ba combat bi jeex waxul Eumeu Sène lu ñaaw. Hmm. ndax ñun ñëpp ay sénégalais nañ. ndam li génnul Sénégal mais nag kontaan naa ci site bi site bi mooy number one. wasaare waaw sa liggéey wasaare lamb déggoo lu ma la. man chaque jour ka jëfee su ma duggee YouTube moom laay seetaan. waaw kàllaama yi day rafet. écran bi dafay rafet son bi dafay rafet. kontaan nañ daal. waaw ñun jaajëf mbokk di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf jërëjëf